waaw lu mu leen di wax ñu gën a jàpp association des tailleurs de Thiaroye-sur-Mer mi ATTE aussi ñu gën a jàppatam si MTS parce que MTS moom moo ñu yombal lii tey ñun bu ñu jógoon individuellement di dem feneen di fay di nga fay lu ëpp tey trois et quelques mille pour ñu former la mais tey lan moo ñu ko yombal dañu affilié wu si MTS mi mouvement des tailleurs du Sénégal. état partenariat rek dañu mën a am ak moom pour mu jàppale xale yi parce que ñun soo xoolee MTS dafa am ay doyen fi nekk xëy na ñun li ñu des si métier bi bëritul mais xale yee fi nekk donc xale yi la ñu bëggoon ñaax état pour ñu jàppale xale yi ci subvention yi ak formation yi parce que MTS déjà am na ay formateurs te loolu rek vraiment c'est un c'est un pas d'avant parce que soo xoolee bu travail Trafete moom moo lay jox ay formateurs mais MTS am nañu ay formateurs mais bëgg nañu aussi tamit ñu accompagner waa MTS ba nga xam ni marché public yi nga xam ne dañ koy joxe au niveau national. waa MTS mën ci gis seen bopp parce que am na ci ay borom xam-xam yu fi nekk yu bëri yoo xam ne tey jii lépp loo xam en matière de confectionnerie la ak culture générale buñ ñu ko joxoon tey MTS dana ko liggéey. que mën nañ ko wax rek ndax wax nañ ko ci njëlbeen ci waxtaan bi ñuy waxtaan mooy gisee nañ ko bët bu rafet gisee nañ ko yëttam lu am njëriñ ci li nga xam ne doomu aadama. ndax euh, wane na yokkute ci koom-koom waaye wane na yokkute ci doomu aadama ñi nga xam ne ñooy liggéey waaye yokku mën nañ na yokkute tam ci askan wi ndax euh, bu ñu demee ba am ñu nga xam ne dañuy yëgantu ci kuréel seen kuréel gi tudd MTS tey ñu liggéey ci wàllu nga xam ne wàllu tailleur la te di ci yokk xam-xam di ci yokk man-man defe naa loolu jeexital yi ci askan wi la jëm askan yi nga xam ne ñoom ñooy ñawlu moo tax bisu tey bi am solo lool euh, moo waral tey ji ñu ñëw fii ngir darajal bis bi waaw waa li ñuy wax rek ci tailleur yi defe naa ne mooy euh, li ma wax rek mooy ñaaxaat leen ndax li nga xam ne tey jii def nañ ko mooy nangu nañu ne yàlla may na leen dara ci xam-xam waaye nangu nañ ne yàlla mën na leen a may ñu gën a yokk xam ba tey jii moo waral tey jii ñu def bés bii ba def ñetti fan yu nga xam ne ngir toog ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di former muy formateur yi fi ñëw ah, di leen gërëm leen sant ndax euh, lii ñu def nii daanaka bu fekkoon ne dañ koy jënd mënuñu ko jënd ci njëgam tey jii bu fekkoon ne ñoom dañ leen di fay dëgg Ah, mënuñu leen fey ci njëgam te xam naa ne lu ñu mën a defanteeg ñoom mënuñu leen fay ci li nga xam ne defal nañ leen ko moo ñoom itam ñu sant leen gërëm leen ci nangu nag ne ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo fi nekk tey jii te abadie ju nekk seen président muy kuréel gi ah ñu ngi ci yoonu nga xam ne yoonu def mu baax la ak def mu gën a baax ndax bu la yàlla mayee nga am lu nga xam ne yaa ngi ci loo kon yàlla may na la xam-xam boo koy defee wala yàlla mayaat la nga am mat gu nga xamee ne nangu nga ne war ngaa gën a mën a yokk xam-xam ngir gën a mën laneen ngir gën a mën a yokk sa xam-xam mais a mën a yokk man man mi nga jëme ci askan wi askan wi man cee gis seen bopp te loolu am na njariñ